waxtaan wi dina ko firndeel professeur Abdoulaye soxna Diop maa ngi lay nuyu di la dalalaat jàmm ci sa kër ñu am mbégte waat jàkkaarloog yow ci Demb ak Tay. Ah, jërëjëf euh, sama doom ah, ah euh, waral ñu dajewaat mu jëm ci Cheikh yow laay déglu. mbir yi demee. Uh-huh. ndax buñ nee Cheikh mm-hmm. man dama jàpp ni euh, Cheikh du nit la jëmm la. Mm-hmm. jëmm la nit la. Mm-hmm. Cheikh itam ay xalaat la. Mm-hmm. Cheikh itam euh, euh, euh, gàngoor la. ay àndandoo la. loolu yëpp bu bu bu day daal di nekk Cheikh waaye ñu war ci ràññee nag li ñu tuddee. li tubaab yi tuddee ci li ñu gisee. mbiri Cheikh Anta tubaab yi ñoo ko jox de waaye nag ñun tam dañ cee da jot suñu ñoo ñoo ko moom ñi ànd ak Cheikh Anta ak li bind ak li mu liggéey ak li eh, gis-gisam mm-hmm. alors ñu tudde ko Cheikh Antéisme Cheikh Antéisme na néologisme la boo xam ni mm-hmm. di nga day dinañ ko fekk ci wàll yu bare bari di nga dégg gaullisme fii dégg marxisme dégg nga day nga dégg sengorisme fii à côté mais non nga dégg te wàddisme ici au Sénégal kon boog chekhantéisme lan la mhm, euh, laaj nga laaj bi ñu ñëw ak yow ci tontu li chekhantéisme lan la très bien chekhantéisme xalaat la ak gisin mu jëm ci mbiri cosaan mhm. ci li ci gën a bari mbiri cosaan ak mbir yi tey ak lépp lu aju itam ci luy jëmale réew kanam ndax Cheikh Anta du rek euh, euh, euh, démbi jamono Anta itam science la bu ñu nee science tam day nekk science autant mathématique que science physique que science ce qu'on appelle aujourd'hui SVT mm. nest pas science de la vie de la nature lépp lu ci biir Anta mm. alors kon boobu bu ñu nee cheikhantéisme mooy ñëpp nangu xalaatu Cheikh Anta jëm ci wàllu science wàllu xarale. Mm-hmm. wàllu xarale ak tam lépp lu xeetoo ak xarale. Mm-hmm. waaw euh, cheikh antéisme bu nu ko weesu am na cheikh antéiste mooy ñi nga xam ne nag xëy na ñoo jël lii nga wax nii def ko seeni mbiri bopp ñooñu mm-hmm. itam ñu war leen a ràññee ndax euh, bari nañu waaye wuute nañ très bien dëgg la ñépp ñi nga xam ne dañoo booloo nangu xalaati cheikh anta jëm si gis-gisam ak wàllu wu mën a li ko tàmbalee ci début jamono ba ci euh, euh, euh, alam gii tey ak dañu koy aaree lépp di nga dey bu bu dajaloo di nga dey ñi ci ñi ci ànd ak Cheikh Anta bokk ak moom gis-gis ñoom ñooy Cheikh Anta yi maanaam waa kër Cheikh Anta yi waa waa toolu Cheikh Anta mm-hmm. ndax ci wàll man dama jàpp ni Cheikh Anta mën nañ ko méngale ak ab tool bu yaatu ah lii magi Kajoor ak Njaambur yi tudd ab gol hmm. Hmm. gol bu yaatu la wu gannaaw daa yaatu hmm. ñii ñëw di ci bay dañoo bari ku ne nag da ci am waar wu muy bu muy bay jëmale fa kon boog loolu moo tax euh, euh, euh, li tubaab bi tudde adep bari man naa cee ràññee ñii bokk ci man ñi ma jàpp ni ñooy ñi jëkk a gëm Cheikh Anta waaye attention Cheikh Anta day musula wax ni <laughs> moo yàlla musu ko wax musul tam ni boppam ni moo yonent musul jàppe boppam leneen lu leneen ku dul ku yor xam-xam ñàkkul bu méngoowul ak xam-xam bi ñeneen yor jëm ci xeetu ñuul kon bokk ci wàllu woowu ñi ko jëkk a gëm man ñoom laa tudde primo adepte maanaam les premiers adeptes premier adepte yi yooyu mën nañ cee ràññee tuuti ci ñi mu bokkal jamono di ay moroomam ci at maanaam ay waa maasam bari wuñu de ñooñu ñooñu ci baree bari mooy ay étudiants yu nekkoon ak moom en France alors bon soxla mooy tudd ay tur. alors ñi ci tegu dee nga day mooy ñi tàmbalee lukkeeku ci njàng mi université wala ci yeneen wàll ci liggéey. Mhm. dégg nga day li ko tàmbalee mille neuf xëy na mille neuf cent soixante. Mhm. ba ay mille neuf cent soixante dix yooyu. alors ci wàllu woowu jàngalekat yi bari nañ ci lool. Mhm. médecin itam am na ci tubaarkàlla étudiant yitam man mii ci laa bokk. dégg nga day tubaarkala bari bari woon na ci bari woon nañ ci tam. alors gannaaw ñooñu nag am ñu dañoo dabu dañoo dabu. ñëw ànd ak Cheikh Anta. Ah, alors mooy. ñi nga xam dëgg day voilà dañoo mus gëmuñu woon. Hmm. waaye nag li ñu gis jàng ko tax na dégg nga day ba léegi. am nañu ngëm. Hmm. ñu nekk ay waa kër Cheikh Anta. Hmm. mu tudd leen ay converti mi ngi mel ni mi ngi mel ni ci bu moo doon bu moo doon méngale. Euh, euh, ku nekkoon bu nekkoon si weneen yoonu diine mhm. bàyyi yoon woowu nag ñëw yoon wu yees mhm. waaye nag Cheikh Anta du mbiru diine de déedéet dañu na leer exemple la rek pour ñu mën a voilà très bien exactement ñi mu ñi mooy ñi mujj ñëw nag wàlli si ci Cheikh Anta ñooñu itam ñoo xam lu tax ñu wàlli si waaye ñu si baree baree bari bu ñu leen jàngatee rek xam ni ñu si baree bari bokk nañu démb ak bëkk démb ci ñi ko doon xeex mm. dina leen sax mën a méngale tey nii daanaka ay transhumance ni ko tuddee transhumance intellectuel ou transhumance culturo intellectuel toujours est-il ñoom itam dañoo wàll si ba tey waaye nag seen gëm-gëm des na ndax si seen ci ñoom si seen biir dañ ci ràññee ñu dañoo mbubboo Cheikh Anta di ko jariñoo waaye gëmuñu ko loolu nag bëgguma ci sori réew mi ñoo ko bokk ku ne xam ne xam ne ka ca des mooy kan. léegi euh, li nga fi wax yépp dafay tënk kon xalaatu Cheikh ant ñi ci toppoon ñi ci njëkk ànd ak moom njëkk koo gëm tey boo ñu doon justement tënkal xalaatu Cheikh Anta Diop ngir ñi lay déglu te xëy na xamuñu ko lan nga leen di wax. Euh, euh, xam nga dafa teel ràññeeku ci ci li tubaab bi tuddee critique maanaam. bañ a nangoo gëm rek. lu ñu ko lu ñu ko bëggloo bëgg a gëm loo dafa ci dafa ci teel a ràjjeeku. ndaxte mu mu nee lycée. bu Moussa am professeur histoire wala bu géographie wala lu jigéen matière yooyu. professeur boo boo boobu wala professeur yooyu daaw ñu déggoo ak Cheikh Anta. loolu waral d'ailleurs sax daq nañ ko ñaar yoon. Hmm. waaw daq nañ ko lycée Van Vollenhoven waaw ah c'est très important ça. Hmm. dàq nañ ko fa ndax loolu. ñàkk a déggoog ñi koy jàngal. bokk ak ñoom xalaat daal. mu doon ndax ci lu jëm si nit ku ñuul. Mm-hmm. kon bokk ci wàll woowu sonn na ci ci lool moo wala dégg nga de bi muy passé baccalauréat daanaka presque comme candidat libre la. ndax ndar ga ndar gi mu xamoon ni ki nga xam ni fala fala demoon tam ngir way way way la fa am njàngam lii si fedar foofu tam yaataluñ ko fa woon lool waaye nag gannaaw nag euh, euh, euh, ku ku ku ku nangoo woon di di xeex xeexloo. Mhm. musul a xaddi. waaw ah, donc ba tax na alors euh, ma sa jàpp ni. gis-gis. moo waral ñàkk a déggoom teel a feeñ digganteem ak tubaab yi waaw. gis ci nit ku ñuul lan waaw ndaxte dafa teel a ràññi. rawatina bi nga xamee dem na France ngir wéyale fa am njàngam. daanaka sax jàng euh, mbirum démbi jamono yóbbu ko fa woon. mathématique ak physique moo ko fa yóbbu woon. waaye nag moom moo beddi yoonu mathématique mu waroon a continuer xëy na pour nekk ingénieur wul pour nekk professeur mathématique bàyyi yoon woowu tuuti nag dem ci yoon wu yees wuy gas jëmale ci dimbi jamono xeetu ñuul ci la nag gisee ni xeetu ñuul daanaka am na lu bare bare lu firnde ni lépp lu xeet ci àdduna bi ci moom ku moom ku ñuul kii la jógee loolu nag mu tàmbali nag di ci gas di ci gëstu di nga de di ci tam bind di itam di di siiwal li mu doon bind. ah donc gëstu yooyu nag moo waral. 1954. cinquante mu mu mu fësal li ñu tuddee thèse doctorat. nation nègre culture. nation nègre moo nga nee ngay seen. ci gannaaw mhm. nga nee ngay seen. Mhm. nation nègre et culture. ci la daal fësale. xalaatam mhm. jëm ci xeetu ñuul. mu xam le ni. tubaab yi dañoo. wëlbati lépp lu jëm ci xeetu ñuul ci njëlbéenam alors loolu nag andi andi andiwuñ coow lu bëree bëri coow lu bëri loolu loolu nag terewul moom musul a xaddi ci xalaat boobu euh, andi na ko jafe-jafe yu bëree baree baree baree bëri ba tax na diggante bi mu présenté des œuvres 1954 ak daanaka 1960 fépp fu ndaje am te xeetu ñuul waral ndaje moomu dañu ko fay woo mu gën a siiwal gën a leeral ay xalaatam jëm ci démbi jamono nit ku ñuul ci wàll woowu nag ràññee nañ ci euh, ndaje mu amoon université de Paris Sorbonne ràññee woon fi itam benn ndaje bu mag a mag mu amoon bu amoon Rome wax dëgg yàlla te ci la nag tàmbali di am nag ñu bare bari ñu koy gëm mën naa cee boole ki gën a ñi gën a ràññee ko ci ñi ko doon gëm ñi ko doon gëm ku mel ni Aimé Aimé Césaire le, le Césaire que, que tout le monde connaît. Aimé mhm. Césaire euh, xëy na daawu ko fësal. boo ko daawul fësal. digganteem la xëy na moom Aimé ak góor gi Léopold Senghor suñu bàyyi Senghor. d'accord waaw ndax euh, diggante ñoom ñaar umpul kenn. Mhm. waaye nag ni Césaire daan gise négritude. Mhm. xawoon naa wuute lool ak ni Papa Léo daan gise négritude. voilà kon boog euh, euh, euh, kooku mën nañ ko ci ràññee man nañoo tam ràññee même ci tubaab bi sax ñoo xam ni dañoo honnête ànd ak moom maa ngi mën a jàpp turu ku mel ni ku ñu naan Henri Lot ndax Henri Lot nga de bii bu Cheikh Anta defaraatee teesam ñu mën ko ko nangul nangul mu nekk thèse d'état en 1960 Henri Lot rek moo nanga woon nekk directeur de thèse am alors Henri Lot boobu daf ko daan digal di ko xelal ni ko ñi leen noonu boo jéemee jàkkaloo ak ñoom mhm. yemu leen doole dañu lay faagaagal ndax dañoo bari aha bu doon nag fii ci réew mi dañ naan dof jóob waaw dof jóob nag <laughs> dafa laaj léeg-léeg mhm. xam di nga ni mu xaw a nite tuuti mhm. bay mooy ba xam ne mu moytoo ay gàllankooru ñu ñu ko mën ñu ko noonoo donc ci xala ci xelu Henri Lot ci la góorgóorlu moom Cheikh Anta ba jubanti waxam fexe na daal ba rëcc président boobu ñu nangul ko ko mu nekk docteur d'état alors loolu nag bi amee nag jamono yooyu ku mel ni Cheikh Hamidou Kane mm. l'aventure ambiguë écrivain ñoom Abdou Diouf ñi ak ñoom Habib Thiam parce que jamono yooyu ay étudiants la ñu en France waa jigéen tabale da ngay jeexal ba waa ji waa ji ñibbisi ñu mm-hmm. di mais dañ ko daan yàlla ko tegoon mm. waaw kon bo waaw Cheikh Anta alors ay moromam tam yu mu nekk nekkaloon Paris ak tam ñu ko xawoon féete tuuti ak ak ndaw mm. euh, euh, dañu daan bég bu ñu musaa dajee ak moom mm. quartier latin xam nga dafa dafa fo quartier latin maanaam wetu université Sorbonne mm. comme Ndakaaru bi d'ailleurs dafa bari dégg day ay ay ay ay ay ay maanaam ay ay barab yoo xam dañu dañu fa daje di waxtaan jamono ci barab yooyu nag dañ ko daan euh, wooyee Serigne Gawane xam nga su ma dégg ci roobu de. sëriñ sëriñ lu tax loola aw solo ndoom. aha Cheikh Anta waaw moo doon waaw te moom itamul nag woon ko lool. te itam yàlla mayoon ko mu teel a am jabar di tubaab. jabar ju ko déggal. jabar ju ko taxa jabar ju ko taxawu. bañ na ko dégg nga de ba jabar jooju. tuub na. njëkk julit Cheikh Anta jox ko nag turu Mariama Marème Marème Diop Marème Diop bàmmeelam ngi fii seetu moom moom moom ko jigéen gi yàggula gaañu lool mm-hmm. donc à peu lii daal laa mën a wax mu théoriser foofu Afrique berceau de l'humanité ci tënk. voilà Afrique berceau de l'humanité mm-hmm. te itam am na benn téere bu ne fële. boo xam ni suñu mbokk bi di Théophile Obenga moo ko bind. lii la ma dégg. Cheikh Anta Diop et le Sphinx. Euh, Obenga moo ko bind. Euh, Cheikh moo bind jëm ci xeetu njuul. alors Volney borom xam-xam la woon bu. bi euh, général Napoléon Bonaparte. nekkee kilifa ci armée française. mooy mooy mooy jamono révolution française bi quoi. alors bu amoon nag benn tukki boo xam ni borom xam-xam yi si yëg ñoo ño ñoo ko seqoon bu ñu demoon defi Égypte ndaxte France dafa amoon ci ay xalaatam yu ci bokk ni ñun naka lay mën a tegee loxo ñàkkul xëy na Égypte ndax canal du Suez. kon boog équipe boobu xam ne dañu leen dajalee dajale nag euh, ñi ci ñi ci ñi ci ràññeeku ci boroom xam-xam. jàppoon nañ ci ku ku ñu tudd ku daan tuddee Volney. Hmm. Volney moom dafa mu di euh, am cofeel ci lépp lu jëm ci xeetu ñuul moom ak ñeneen ak ñeneen parmi les révolutionnaires de la de de de quatre-vingt-neuf. alors ba mu demee Égypte moom ànd ak Bonaparte mu gis ci fi Caire nekk tey. Hmm. Euh, benn pyramide boo xam ni ca kaw a kaw a kaw a kaw hmm. dafa am mandarga wu ràññeeku. Euh, nekk gaynde gaynde gu ñu gaynde gaynde gu ñu defar gu ñu gu tawax hmm. waaye nag jox ko boppu nit hmm. gaynde gu tëdd nii non tëddul waaye waay waaye dafa bank ñeenti tànk yi mel ni ko mel ni nag euh, dalay dalay xool yow ni la jàkk hmm. waaye nag li mu yor koon boppu gaynde bi boppu nit waaw kay mu nag yor boppu nit te boppu nit gi dañ ko mandargaal ba nga xam ni du amul sikki sàkk boo ko xoolee nga xam ne kii. ku ku ñuul d'abord nit la. waaw te ku ñuul dégg nga mm. la la la la la représenté. alors loolu nag jaaxal Volney. li ko ci jaaxal lépp nag mu bind ko. ba nga xamee ne nag delluwaat na euh, euh, France jàng da nga day la mu jëlee Égypte mm-hmm. muy ne ay la yéwén man jàpp naa ni li ñu tuddee sphinx. borom bopp bii ku ñuul la woon ndax ndax bopp bi. day euh, euh, euh, fi ñu ko teg maanaam ci pyramide bi mooy mooy pyramide yi yi ne Égypte. waaw Gizeh. alors benn Firawna daanaka ja dañoo jàpp ni moom moo mandargal boppam mu nekk gaynde hmm. di nga ak bopp ak ak ak ak boppam ak ak hmm. bopp nitam. te itam mu sukkandikoo ci ci ay maamam hmm. maanaam ba ñuy Égypte pas du sosu. bopp bi dafay niru ak ñenn ci seen maam yi te ñooñu ñëpp dañoo jàpp ni nit ñu ñuul la ñu woon alors kon bopp loolu moo waral Cheikh Anta le sphinx Cheikh Anta le euh, euh, euh, alors loolu nag daanaka ci la waa France nag tàmbalee ràññi lépp lu jëm ci Égypte alors ginnaaw si gi nag Champollion mi nga xam dégg di moo fexee ba ba ba jàngat li ñu tuddee écriture hiéroglyphe dégg di mu fexe ba xam naka lañ ko jàngatee. ak itam dégg di naka lañ ko mën a ràññee ak wax ji mu ëmb yan wax la. léegi nag ginnaaw xalaat bi ak xëy na ñi ànd ak moom ak ñi wàll seeg yooyu yëpp ñu ñëw nag ci nit ki Cheikh Anta xëy na dootul ko ñuy présenté waaye xëy na itam heure boo gasee rek du ñàkk nga gis ci dara ndax Cheikh Anta dafa yaatu tey yow mi ko xam euh, d'abord bala ñuy ñëw ci moom sax seen diggante euh, lan na ko fas loo sekk ak Cheikh waaw dafa am loo xam moom du ci yegg. waaw ndax bu bu ci yeggee <laughs> mën nañ ko gisee neneen. waaye euh, bi nga xamee ni fii am naa jafe-jafe ifan mhm. dañ maa daq yow waaw lu xewoon. <laughs> dañu ni ñaari Cheikh Anta daal mënuñu koo nangu. université ah, ah. waaw benn bi rek doy na. d'accord parce ñu dàq ñu daq ko. toog naa fi ay at ñaari at ak sama salaire lépp. waaye ma xëy xëy xëy day ñu ne ma ay aywa dañu lay abale. gannaaw ma loolu ñu ne dara dañu lay abale nga génn réew mi. Mm. dañu lay abal euh, euh, euh, université bu Gabon. Mm-hmm. ca laa demee nag Libreville damaa jëkkoon a bañ. waaye nag samay samay samay ñooñ. ñu mën a attention ndax boo bañee kat day nekk leneen. leneen waaw. waaw ndaxte attention. Mm-hmm. parler wane wu fi ab ab moo ko remplacé waaye nag nga di voilà mu ngi doon daal. Mm-hmm. man nangoo dem ba may dem nag euh, euh, jarbaatu Cheikh Anta maanaam kenn ci euh, doomi doomu ndeyam de maanaam koo xam ni Cheikh Anta moo ko jox ay sagari njaam. waaw sangam jaamu jaamu moo ñëw ba fii ci man. Mhm. ni ma dama bëgg di nga sama doom ji nga ànd ak moom yóbbu ko alors suxun nekk nañu Gabon ak njaboot gi ba wàññeeku gis nga Cheikh Anta ceytu la dëkk ceytu dëkk cosaan la boo déggee tey ci euh, waxi wolof ah. baat bi nekk saytu mm-hmm. foofu la jógee ah. ndax dafa teel sosoo te ña ko sos ci njalbeen mm-hmm. dooni borom xam-xam yu dañoo jógee euh, euh, diggante jolof ak kajoor kajoor ca kaw ak njàmbur wàcc si ndànk-ndànk rek def nag ay car ñi aw nii ñi aw nag euh, euh, wetu bawol gi diggante par diggante bawol ak kajoor dégg nga di ñooyu nag ñi nar a meññ Cheikh Anta alors loolu moo waral gannaaw borom xam-xam lañu ñu tudd seen dëkk bi nag ceytu maanaam barab bu ñu ñëw sampu ngir di fa gëstu mooy ceytu alors ñeneen ñi dem ci weneen weneen wàll. bon donc lii moo waral ceytu te itam kii mooy Cheikh Anta. fa mu bokk dañoo teel a ràññee ko. ci xam-xam. moom itam dégg day mu teel a ko ci xam-xam. ci xam boo ñu doon nataala Cheikh Anta. loo ñuy wax ci jëmm ji. ah jëmm ji de jëmm yu woyof la woon. man mi yàlla def yàlla def na sama xamee ak moom maa maa ngi koy fàttaliku 1961 la woon. mi jooju bi 1961. benn at ginnaaw bi ñu amee indépendance. voilà très bien fekk moo nekkoon jeune instituteur ñu doon nekkoon fee ci àll ba ci fi fii fii aéroport nekk léegi Bandia fa laa doon jàngalee alors vacances nag mu daan ñëw suñu koñ. ci lañ ma ko présenté ci laa gëj jëkk a xamee ak moom. alors ràññeeku bi nag gën a xóot ba bi ma nekkee étudiant war a def sama sama mémoire de maîtrise. Euh, ñu jox ma su euh, sujet bu. dama waroon a dem Bawol. ma dem ci moom yeggee ko ko mu boolee ma ak jamono yooyu. fii ci Pàkku Lambaay. Mhm. boo gisee ma ne Cheikh Anta ku woyof la. Pàkku Lambaay. la ma boole dégg de ak génn góor gu fa newoon. gurul googu de moom la àndal ba dem làmbaay ci boppam. Hmm. waaw làmbaay. ca bawol waaw ca bawol. Mm-hmm. jóge fa dem feneen ak feneen ak bi ma ñëwee euh, euh, euh, mu bëgg lool wax dëgg yàlla. Mm-hmm. alors ginnaaw si gi bi ma jógee université jàngale benn at ñaari at. Mm-hmm. delluwaat ci njàng mi. waaye nag gëstu. waaw may dem France nga de mu boole ma ak dama ne lépp itam wax dëgg yàlla mosunoo daal mosunoo daal tàggoo. ba ma jeexalee itam ñëw ñibbi si fii defe naa yëg xaw ma yëgee naa la ko fi xaw ma bi ñu mujjee waxtaan. Mm-hmm. ba ma yëgsee ñëw di ko nuyu si dafa ma ne yàlla la indi. ndaxte bi ma jeexalee sama sama li ñu tuddee soutenance thèse. ba mu jeexee dafa ci am si ay noonam kenn ku musuloo nangu man ma nekk Paris di liggéey ci lu moom jàpp na ni sama néew ci. mooy lan. mooy maanaam daal waruma nekk archéologue. Mm. waruma nekk préhistorien. d'accord très bien. kooku nag ba may présenter euh, euh, sama thèse mu bind sama directeur de thèse ni ko dafa dafa dafa dafa bëgg bokk ci jury bi sama directeur de thèse nag c' était pas n' importe qui mm. c' était le directeur adjoint du musée de l'homme à Paris nekk itam dégg grand responsable li ñu tuddee CNRS mm. alors kooku ko ni ko ki li mu présenté euh, euh, thèse bi muy présenté sa yoon newu si kooku nag waa nag mer bind nag lecturer recteur université fii boobu kii da recteur université fii soxla mooy tudd turam mhm. waaw ndaxte mën na ko dégg day day day wax ba tey mi fi de mhm. alors jot lettre bi dégg nga de kii itam directeur IFAN mu bind ko mu lettre moom itam kooku itam jot lettre am bi lu mu wax déglu rek alors ba ma ñëwee euh, euh, ko nuyu si wa ma yow yàlla leen di ni ràpp bureau mhm. ah <laughs> ma ne waaw ba jàmm la mu ne nii xëcc si roonam xëcc ni mu am jàngal ma jàng buy lettre boobu ma la tuddoon léegi bu lettre bu gàtt la ah. nag ne pas accepter que monsieur Diop officie à la faculté des lettres ou que monsieur Diop soit chercheur à l'IFAN point barre ah bon monsieur Abdoulaye Soxna waaye nag waxul lu tax dégg nga de loolu mënu ma gis lettre baa ngi nii waaye nag waaye nag xas secret xam nga Cheikh nekk na université ba nifi fi Senghor jógee ajjuma ju jot rapport bu ay agent secret day segu ci loxo Senghor mu jëm ci Cheikh Anta Diop waaw te rapport yooyu ay kilifay université bokkoon ñu jëngate ci ñi ko daan bind ah waaw moom itam mu teel a xam loolu am itam euh, euh, réseau <laughs> réseau boobu mm. waaw réseau boobu nag ñoo ko nag andil ko copie mm. lettre boobu waa ji bind ngóor si bind ci waaw ci man moom mi ngi nii bon yàlla ko dara tëwul toog naa fi ay ay ñeenti weer juróomi weer ma mel ministère hmm. waaye dama xëy xëy deen xamul xew bi nu ma leet ni ma ni ma hmm. ma de dee fii ñu ma te doxoo ci waxoo ci wallaahi waaw na yàlla waaw mu noonu nii laa ñëwee IFAN ñëw IFAN nekk fa ay jamono euh, euh, ba mooy ñëwee IFAN daanaka ñetti weer ñeenti weer ma ñëw te ku foofu ku fa ne boo fa nekkee chercheur. obligatoirement. at mu jot. war nga fa mu gën a néewee muy benn article scientifique. nga joxe ko. Ah soo toogee ñaar at ñetti at defoo defoo ko te lay dàq. waaw ifan gi ifan gi. Hmm. waaw loolu nag xam naa jóge na fa ndax xam ba euh, lu bari changé na. rigueur bi alors ba ñëw. toog ñaari weer ñetti weer. dajale juróomi article scientifique. Mhm. joxe ko ci circuit bi. Mhm. ndax foofu. soo bindee article scientifique dañu koy enregistré képp kuy chercheur IFAN dina jaar ci moom kooku liir ko xool ko mm-hmm. def ci observation mm-hmm. mu continuer ba mu wéy alors yëf nag di daw di daw di daw ba egsi da nga ci sama benn collègue française mm-hmm. alors kooku ñu fëgg sama bureau toog ni mais mais Diop tu es toi mm. Mais ce que j'ai vu là, des chercheurs sont restés là ici 15 ans, ils n'ont pas produit, pas, disons, la moitié. Toi, tu arrives une fois, une fois et, et, et, et, tu produis à la fois 5 articles. Tu signes ton arrêt de mort. Wallahi, non, le mot mm. tu signes ton arrêt de mort. Et tu vas voir. Eh Mais ici, c'est pas hmm. Mais n'est pas, tu vas euh, euh, faire braquer par les sur toi. Et c'est pas bon pour toi. Ah, <laughs> bon ma ko yàlla yow nga yéwén ci xalaat rek. jox leen juróom wallaay ma ne ko nag yàlla yor ñëpp. Mm. dégg naa sama boobu yàlla. Mm. dëgg la <laughs> ñaari at boobu mu watee la ko ma mm. waaw jëlee ma fa. sànni ma eh, euh, euh, euh, ifan bu ndar. mu ñëw fa ko fa doon gouverneur di Thierno Birahim Ndaw ni ma yee eh, xam lu bu baax a baax de fii du sa place. yéen waa Ndakaaru ak seen problème mm. man bu leen ma ci boole. Mm. dellool fa nga jóge woon. Ah. waaw fii du pour yow yaa ngi feneen ñii laa dellu si waatee Ndakaaru ministère ñu sax dama ci as as bu kus. Mm. bu soosu daal laa toog ba yàgg man yi daal je dem toog suma kër tëdd suma kër bon après rapidement finalement. daal jot naa lettre président bu bees bi. muy euh, Abdou Diouf. voilà noonu la ma sànnee ci kaw abal abale abalema. Gabon Gabon. d'accord mu noonu. boobu Cheikh Anta lu ci nekkoon taxawaayam ak seen diggante yéen ñaar. yuu Cheikh Anta gis nga. maa ko teel a xamante ko grand bàyyi ma ak ñii ndax xamee nañu. Mm-hmm. man étudiant la bañ ma marqué au fer rouge avant ma ne sa étudiant nekk naa instituteur ci àll bi. Mm-hmm. dégg di ñu marqué moo fin rouge ni PAI yi la mm-hmm. dëgg la woon jamono waaye lu ci lu ci doon doon seen yoon mm-hmm. waaw maire maire Caroline Faye bi ngay dégg mm-hmm. ak euh, euh, Demba Diop stade Demba Diop turandoo bi dégg di mais man dama leen a miin parce que waa Mbour lañu te dañ daan ñëw ci man waaw bon donc euh, nii daal laa ko ne bu ci waaw bu ci te xam nga moom itam daawuñu ko baal dara am. yëf yi metti ko lool waaye mu defal ko ba nga ba nga xëy xëy néew ni ko nag mi ngi ne dàq nañ ma nag léegi nag ni dañu ma nag xajut woo sax Sénégal waaye sànni nañu <laughs> moo jëkk a bokk ci ci ci ñi ma ni. Mhm. demal. ndax boo demulee dina gën a si mhm. gàttal. d'accord alors dafa am nag. Mhm. lu ma bë lu ma bëgg a dellu tuuti. mooy Cheikh Anta ci ak ci ak ngoneem. Cheikh Anta man yàlla dafa daf maa may euh, ma euh, euh, amoon ci suma ñi ma daan jàngal bi ma nekk école primaire ku jigéen ñu naan ko Anna Sagna Anna Sagna plus madame Anna Sagna Ndiaye doon doon moroomu Cheikh Anta nekkoon itam jamonoy Cheikh Anta école bu njaareem école primaire bu njaareem moom cundum di jigéen ci école ba ah. bokk ak Cheikh Anta classe école primaire. moom ana ana ana Saña moom cundum. moo jigéen jigéen njaareem. alors dafa daan may lu bari. ci seen ci seen seenum ngune. ni mu sobe woon mm-hmm. <laughs> ni ni mu njaxle woon. Mm-hmm. njax njaxlafoon. Mm-hmm. ak ni mu daan mën a mën a tooñee. mu noonu sama beneen grand itam ñu ko Ablaye Mbodj moo tamit chercheur la woon. moom moom nag ñoom ñoo ko rawoon. waaye moom tam xamoon na bu baax si bu muy nekkee élève voilà loolu laa ci bëggoon euh, euh, yokk mm-hmm. euh, ba tax na sama xamee ak Cheikh Anta tooguma rek ñëw université ñu xamee moom déedéet mm-hmm. dafa teel am na ci wàllu woo xam ne du ma ci yegg ndaxte kooku kooku c'est pas scientifique. d'accord waaw kon kon booy wax ne yow ndongob Cheikh Anta nga. Mm-hmm. mën nañoo jàpp ne du ku la jàngal waaye xëy na. ndongo nga ci xalaat. ak moom bokk ak moom gis-gis ci wàll woowu. waaw d'accord dëgg la. Ah. sànq yaa ngi junj aussi euh, production scientifique euh, justement loolu daf ñuy indi ci Cheikh bi nga nekkee IFAN la woon bien sûr mais mhm. euh, Cheikh Anta itam liggéey na ci wàll woowu bu bari mhm. euh, muy production scientifique loolu ci mën a wax. naka production scientifique. bu Cheikh Anta mhm. maanaam lépp loo xam ne mbindu la. wala muy xalaat xalaat mu mbindu. mu bindu. waaw li nga de mënees cee teg bët moo comme li ma la woon moo téere yii. ak yeneen articles yi. articles yi bari nañu lool. te itam leneen itam Cheikh Anta euh, dëgg la. Euh, réew mii di am réewam bu ñu teggee aboni Cheikh Anta te avenue Cheikh Anta itam dinaa la yegge li ko waral xam nga waxoon naa la sànq ni la Cheikh ñi ko bëggoon dañoo bari ci réew mi waaye mosuñu ñi ñu sëqat feeg bàyyi la woo mi fi woon kenn mënutu woon mosuñu waaw nangoo feeñ attention li ko tàmbalee ci jàngalekat yi université yi. waaw léegi kon ñu taxaw tuuti sengoor ak Cheikh Anta lu nekkoon seen diggante ba xëy nag ñi amoon cofeel ci Cheikh Anta wala bokk ak moom xalaat ñemewuñ koon fësal bi Senghor nekkee président. xam nga lu ko waraloon. ndaxte euh, euh, d'abord ñoom ñaar euh, li li li leen xajale dafa bari. waaye nag ci ëmb rek. bokkuñu dal maanaam. gis-gis ci ci ci wenn wàll nag. kii day kañ di tagg tubaab yi. kii nag moom day kañ di tagg der bu ñuul te itam du tagg kañ der bu ñuul ndax di nga de bëgg ko rek a def déedéet day gën a ay preuve ay firnde ay te loolu tam dafay daal di fekk si daanaka lu mel ni négritude bu négritude bu euh, MSSR ak négritude bu Baye Léo parce que Baye Léo moom assimilationnisme mm-hmm. waaw maanaam nangu na mm. di nga de nangu na colonisation euh, fii Euh, euh, euh, Aimé Césaire bañee colonisation li fii fi indi fi ne bu rëy mooy cahier de retour au pays natal mhm. alors da ko cee wone alors paléo yamul rek nekk ci assimilation waaye da nga dem na sax da nga di ba romb assimilation génne le concept enracinement et ouverture mhm. waaye booy jàng ay téere moom ak lépp lu lépp luy xalaatam mhm. ouverture bi mu ëpp doole foofu enracinement bi bu dee nag Aimé Césaire c'est le contraire foofu nag loolu waraloon nag. Aimé Césaire ak Cheikh Anta ah waa kay. d'accord leer na. xëy na ñàkkul ay mbir yu mu daan def ci suuf. ci Cheikh Anta. très bien euh, euh, lii tam dina dina la bett d'abord bala may yi ndax dafa laaj ñu wax ko ndax lu baax. dañ koy wax. ci ñi daan nëbbutu. ngir ragal Senghor. dina la ci tuddee tudd ku mel ni Mamadou Diop. Diop Diop le maire. ancien maire bu Dakar ancien maire de Dakar. waaw dañoo jigéen ci loo xam ne a ci yegg. alors euh, du moom rek de. Habib Thiam. ancien premier benn ancien premier ministre. même Abdou Diouf mii li ma lay wax wax fii dégg de ay ay années soixante dix la de. waaw Abdou Diouf mii waaye mosuñu ko ñi ma ñee feeñal. man na gannaaw nag gis nga li ma la woon léegi nii euh, euh, ci ci téere Cheikh Mbacké Diop bi. Mhm. article bi ma la woon article baa ngi nii gis nga mi ngi pour ko reprendre alors mi maa ngi génne ci journal bi nga xam ni dafa daan dafa doon tooñ bi mhm. nga tuddoon l'unité africaine la gannaaw nag euh, euh, dama daan ma bi nga xamee ni euh, colloque bi am na fi bi ma la woon léegi livre am 1977 te itam détail bu am importance ba atum 1977 jàppal de Cheikh Anta musula nga ubbi gémmiñam ngaang biir université gannaaw juróom ifan maanaam étudiants yi xamuñu ko woon dañ daan dégg rek su ruy waaye musul am manifestation mukk ba ñu boole ko ci donc pour la première fois en 1977. Mhm. Cheikh Anta nag feeñ. ok gis nga. doyen Moustapha Sourang. xam nga ko ko ci suuf ci suuf. booba woon nekkoon defe naa DES DES waaw mhm. c'est-à-dire maîtrise. Mhm. tey j'ai jeune. ak yenn ay ay moromam ñu bare bari ci ñoom. alors Cheikh Anta def na fa ngir tiiñal ñi ko daan mos di tiiñal ci bitim réew. te tiñalaat ko andiwaatoon loon andiwaatoon leen ci réew mi mu tiñal leen nag waaye tiñal gi dafa am xóotaay bu ci wallaahi lu kenn musul gis fii étudiants yi parti daanu rap daanu gàngri di say ci biir amphithéâtre fac de de médecine fii fii waaw waaw ah faculté de médecine seen amphithéâtre mhm. fa la woon daanu gàngri daanu gàngri mhm. ñoom ñoom ñëpp wallaahi donc pour la première fois loolu am. lu mu doon waxtaanee bés booba. mooy justement ci li ñu ko daan euh, euh, di ngate. Hmm. affaire antériorité. Mhm. des civilisations noires. d'accord maanaam téereem yii. Hmm. nga gis nii. Hmm. thèse fondamentale bi. der bu ñuul dégg nga day moo jiitu. léegi nag yëf yi dafa gën a leer. waaw ndaxte der bu ñuul ci wàllu wépp dem nañ sax da nga ba génnee nag si lu wóor nii. Mm. der bu weex ci der bu ñuul la jógee. léegi avenue Cheikh Anta Diop bi yaa ngi koy junj. sànq tur bi naka la ñëwee. très bien nga xamee ne ni colloque bi ab ah, na. alors man mii maa def compte bi moo tax Cheikh Mbacke Dioum def le jour la waa kii defoon compte rendu bi alors Cheikh Mbacke nag Dioum Dioum nag parce que dafa jël journal bi. waaye li mu def kon Ablaye Soxna Diop. Mm-hmm. gis nga mu bind fii. le journaliste Ablaye Soxna Dieng. Mm-hmm. gis nga Soxna Dieng. Mm-hmm. lu ko waraloon ndax jamono jooju seen maam soxla Dieng moo gënoon a siiw. d'accord <laughs> waaw mu noonu. Hmm. mais heureusement plus tard maintenant rectifié naa ko. waaw ma jël nag article bi nag yóbbu ko journal bi Habib Thiam doon dirigé. Hmm. unité africaine xaw ma woon. tamit hmm. jamono du ma du ma woon PS. alors ñu nangul ma article bi ñu publier ko. article boobu nag la Cheikh Mbacke jël coupure bi. Cheikh Mbacke doomi Cheikh Anta Diop la Cheikh Anta. te te la du Mamadou Diop ràññee dégg bu baax li mu xamul woon ci Cheikh Anta ndax dafa daf ko ta mosu ko sax ñi mañ jegeñ waaw alors moom mosu wax ba ci gémañoon ni ma wax dëgg yàlla bëggul de ndax bu ñëwee seet si ko ñu nga de moom Mamadou Diop Mamadou Diop le maire bu ñëwee seet si Cheikh Anta mën na am problème te bu ñu jógee sax ni dégg nga de voilà mu ngi damal ko am problème donc moom boo na itam ci ñu daan admirer Cheikh Anta. moo tax bi Cheikh Anta gaañoo. 1987. Mm-hmm. ci 6. waaw 6 li mu déggoo ak Abdou juuf ci la ñaan Abdou Diouf ni ko may ma rek. route de Wakam ñu tudd ñu ko Cheikh Anta. d'accord avenue Cheikh Anta Diop. et maintenant plus tard maintenant. le nom de l'université suivra. balaa ñu ko tuddee université boobu am na jafe-jafe yu bari yu mu fa dund jafe-jafe ci yàngale mi sax surtout. bu baax waaw alors. 1977 xam nga mooy colloque bi. pour la première fois mu wax. waaye ba 1982. Cheikh Anta mosul jàngale. ndox dañ koo kale woon. rawuloon moom mi fi ne woon fii tubaab boobu ku ñuul ku tubaab bu def boppam tubaab. ak noonu yéen a fo fële ñoo mu sa fonk loolu. ba ñi ne woon fii nag. te nag ñi meññee feeñ bu baax a baax. ñi waa Cheikh Anta mu amoon si ñaar ñu ràññeeku. sama kenn sama ancien professeur yi. professeur Sekene Mody Sissoko. ak euh, professeur Pathé Diagne xëy na di nga dégg turam. Pathé Diagne euh, euh, bu ndaw la ci Souleymane Bachir Diagne. d'accord le le le l'intellectuel. donc ñoom daal ñoo ak Amady Ali Dieng. ñoo dajaloo ni su n'est pas normal. colloque bi fi am bu ya en 77 doyul. chante mm-hmm. dañu dañoo il faut mu gën a siiw. ñu ne loolu li koy li koy am yombalal nag. mooy ñu lal pexe mu. dinañ fi amal semaine lëmm. jagle ko Cheikh Anta moom rek muy def conférence pendant une semaine ci benn ci amphithéâtre yi ci la nag amee euh, la semaine Cheikh Anta juróom-ñaari fan ngoon gu jot mm-hmm. ba ndeysaan ci juróom juróom-ñaareel bi fan bi ndeysaan dafa sonn dafa xam hmm? xam ci biir amphithéâtre bi ah waaw li ko xam loon fa du dara lu dul jamono yooyu xam nga waa ànd jëf yi dañoo amoon benn kuréel bu ndaw bu ñu tudde woon xal yi xalu yi xal xam nga xal xalu safara ah yu nekk ay ay perturbateurs yoo xam ni. Mhm. c'était pas disons des révolutionnaires inconscients. parce que nous on y est passé avant. Mhm. alors ñii nag faaw ñu tiñal Cheikh Anta. ak itam dégg nga de ci étudiants yu yu de lettres fac de mu amoon ci wenn wàllu wu. dañu leen tàggat ca France. ñu di ay sénégalais. diplômé mhm. am doctorat. ñu war a ci nag pour xeex Cheikh Anta. waaye nag bi ñuy poussé mu am ñu bari ñu ci ràññeeku nag dellu gannaaw lànk loolu. te ñu loolu man damaa tudd turu ku mel ni Amid Amadou Amadou Amidine bi yor tey le musée de civilisation la. dafa pipp ni moom du bokk ci loolu. waaye ay moromam am nañ ci bokk. du ma tudd tur waaye am na ci koo xam ne ab njóobeen la te moo gënoon a dof ci <laughs> waa Sénégal dof jóob. ci benn benn euh, euh, débat mu am fitu dëgër yi ñëw yëg ci ko amphithéâtre ah. taxaw jàkkaarloo ñëpp mhm. di jox xam yi Cheikh Anta hmm? nangoo Cheikh Anta dafa xaw a nos nag mhm. Cheikh Anta mhm. wax fa ay waxi dof yoo xam ne kenn xamul waxi lan la dañu naan ne borom kuddu lakk Cheikh bëgg a wax ñu ko déedéet kenn ci suñu moroom yi man damaa tudd waaw turam de professeur Massamba Lam tey ji dafa retraité nekkoon na fi directeur musée Tachère. d'accord archéologue également. Mm. moo jóg bu njëkk. njóobeen bu dof boobu. Mm-hmm. delloo ko ci ba àndam. Mm. ak daaj ko nag ay argument yu. dafa daan sax daanaka dafa xam. Mm. waaw sewal ko dal tuutal ko xamal ni ko nag xamal ko ni ko nag wax dëgg yàlla tolloogul moom mii mm-hmm. fu muy diir ba di ko joxar bi ah ah di ko joxar bi. ba it di ko diiŋat ndax wax dof la fi wax kon boog bal nañ ko ko yëgal nañu ko ko mu noonu loolu am na fi alors bañ jóge na bañ jóge na ci ci euh, ci euh, euh, semaine Cheikh Anta boobu nag sama gars ñi bàyyiwuñu suñu grand yi Cheikh Anta Diop Cheikh Anta Mody ak ñeneen ñeneen mm-hmm. ñu ne adeedeet ah, du ñëm foofu bala ñuy bàyyi Cheikh Anta ñu ko jàngalee mm-hmm. fa ñu noonu du fa teg danga mukk waaw loolu la waral nag 1982 mu jàngale mu jàngale égyptologie alors yàlla woo yàlla kenn ci suñu rakk yi mu am ci ko sawar ku xel mi tam neex lool nangoo ànd ak moom gunge ko ñu naan ko euh, euh, euh, professeur Aboubacar Moussa Lam moo nekk assistant Cheikh Anta fac département d'histoire ba ni Cheikh Anta génne àdduna moom mi professeur Lam mi ngi fii dafa retraité tey kilifa kilifa futanke la mhm. mi ngi fi yor yor kursam mhm. waaye nag léeg-léeg tam dina dem dem ci euh, euh, xew-xew yi mhm. xew-xewu science yi waaw ñu ñëw ci Cheikh Anta ak politique taxawal na fi parti muy RND lu ko jiitu itam leneen mu xawoon itam am wuute gu bari ci wàllu woowu diggante moom ak euh, Senghor voilà Cheikh Anta dafa bind ci benn ci téeréem yi les fondements d'un futur état xëy na di nga dégg tur yi ci euh, téere boobu da cee tënk moom xalaatam ci gis-gisu politique ak itam ni Afrique war a bindoo ci wàll yépp nag dégg nga de ak itam di nga li ko yàlla jaglee mu ne ci suuf ci biir suuf si baa mu ne ci euh, ci kaw suuf si baa mu ne ci géej gi loolu yëpp naka la koy naka la mën a fexee dégg de ba njariñ loolu bañ euh, bañ a génn dem dem yoonam waaye des ci Afrique loolu yëpp da koo tënk ci téere bi alors ba na ñàkkul mu ni xëy na téere bi du doy ca la nag sosé bloc des masses sénégalaises BMS 1962 bu ma jumulee alors 1962 euh, dès coowul bari lool ñu noonu dañ koy tere waaw paléo da de moo ni moo ni moo moo ni du fi amee fore naa de ci ay mag ñu parce que jamono jooju réeroo ak Senghor amagul woon desoon ay weer nag moom moo ni Senghor attention bàyyil bàyyi ndax donte sax àndoo ci lépp lu mu li mu wax ci téeram bi te dafa feeñ dëgg ci parti bi mu créé am na ci lu ñun mën nañ koo jariñoo kon boog bàyyi ko looloo may nag paale woo ëffal si xanta waaye bi mbir mi amee ñoom ñaar seen diggante mooy li ñu tuddee les événements de soixante deux di nga di da rek euh, euh, euh, mille neuf cent soixante trois lalu Senghor tas BMS mm-hmm. interdit interdit BMS Cheikh Anta taxawaal ci front national de lutte. FNL waaw. carrément jëlaat programme e, euh, euh, BMS. indi ko jël fa ci euh, ci front front national. alors front national boobu mu bundu paale woo itam bundu ko. xëbal ko xëbal ko kenn ko si jàpp nañu ko am njaarim waaye ay waxtu rek la. Mm-hmm. <laughs> waaw waaye yàggu ko yàggu ko ay waxtu la moom. waaw dañu daal joxe joxe digal ah. Mm-hmm. ay wóoru jamono <laughs> yooyu gis nga Cheikh Anta bu doon bu ko maloon kon kon kon paali doon am problème ndax murit la dafa yamul ci nekk ci murit dafa bokk ci murit bi waaw am na dégg nga di euh, euh, euh, sëñ Moustapha Mbacké caytu xanaa di nga dégg turam eh bien c'est son cousin direct waaw ndax dafa xeetoo dégg nga ak waa kër waa kër waa waa kër euh, euh, euh, sëñ Gaawaan. donc waaye nag Cheikh Cheikh mosul exploité wàllu woowu. donc. dafa mos moo tax <laughs> fësul daanaka. Ah, daanaka voilà. finalement daal Cheikh Anta ci biir politique bi mën nañ ko nag jàngatee lu bari. waaye man damaa jàpp ni du woon pour moom. waaye dafa jàppoon ne xëy na ay xalaatam ñeneen daañ daañ ci mën a sukkandiku. ngir xàll yoon wi man cee dem. moo tax musul sori ci politique. ndaxte ginnaaw si gi itam bi mu bi mu sosolee amale itam RND. RND bi tam gis nga. wet gu la ko parlé jaar. ndax dafa génne journal dégg nga ne bu mu bu tudd bu mu tuddee siggi. siggi siggi. boo koy bind ci transcription internationale da naan SI ñaari G. waaw I muy siggi. loolu la tubaab bi ñu tuddee gémination. parlé woo jël décret ni tere na gémination ci wa wa bi ñuy waxee wolof. maanaam moom moo war a fent de nga ne naka la ñuy waxee wolof. te moom déglu ah, wolof moom déglu wolof. waaw ah, lu ko ci dérangé woon. wala bu jox lay wax waaw waaw waaw mu noonu. lan la ko dérangé woon. daf mu ni daal dañuy wax ne war a wax rek siigi. Hmm. siigi <laughs> waaw siigi. mais am na am na beneen bu gën a reetal bu ma leen ko yeggee nag <laughs> moom xam nga dafa mos a dem Louga. <laughs> xam nga Louga ak euh, daanaka njaamul gépp ba Jolof euh, euh, feu de brousse dafa gaaw ñu bëgg wax nag waa Louga bàyyi leen nag di ay daay waaye nag moom ay wolofam nag <laughs> mu waxee ko nu waaw foofu mënoo ah, ah, ah, mu ngi noonu <laughs> alors da ñoo yet <laughs> mu ngi noonu kon boog mhm. lii nag li mu ko li mu doon kon leçon ci moom wayemuni terrain mhm. ku géminer mu interdire euh, euh, siggi mhm. jëkkoon a interdire kaddu mhm. kaddu mooy journal bi Pate Diagne créé woon muy muy mu journal wolof ñaari dee lan ci def muy la dégg day benn de benn rek benn dee la mayee mm, muy kaddu mooy mooy kaddu <laughs> alors nii la lakkalee Pate Diagne dégg ne ba Pate Diagne génn ci mm. siggi itam même chose mm. ñu interdire ko Cheikh Anta taxawal euh, taxawal gannaaw a nañ ko siggi. siggi léegi mu taxaw on dit taxaw. <laughs> waaw taxaw nekk journal journal RND. su offre finalement voilà mu ngi noonu daal ba final ba finalement. journal bi xëy xëy disparaître. doy na waar mu noonu. Uh-huh. ñu jeexal ak uh, génnuk adduna bi nga xam ne moo lay taayal waxtaan wi juróom-ñaari fan weeru février atum 1986 keroog métti woon na lool ci yéen ñi nga xam ne ay ndongoy Cheikh Anta ngeen. man de fekkuma fi sax. ma fekk ma uh, fekk uh, Libreville. Mm-hmm. Euh, xam naa daal ci guddi ga euh, dafa naa bisub alxamis la woon de bu ma juumulee parce que dama bàyyi woon sama kër boobu ma ma maa ngoon liberté 6 kenn ci sama sama rakk yi moo yoroon kër ga alors mu téléphoné ma nag ay ay booru huit heures et demi non neuf ñu ma daal grand daal fi mu ne la ñun daal fi mu ne dëkk bi yëpp dañoo dee dañu daje suñu yëpp da suñu raw dafa dee ndax li ñu dégg bu ci information huit heures alu xew mm-hmm. mu Cheikh Anta génn àdduna nii laa ko yëgee jamono jooju nag Théophile Obenga bi ma la woon téeram léegi maa moom ñoo nekk doon université bu Libreville moom mu nekkoon fa jamono yooyu directeur du centre international des civilisations bantou waaye nag daan jàngale ak man mm, mooy bañ la abalee Gabon waaw kon bala ngay ñibbi si la génn àdduna sa ginnaaw waaw 1987 man maa ngi maa ngi ñibbi si ay ay ay ay ay booru ay 94 94 mm. donc li euh, euh, ñuy la laa ko yëgee mm. alors ci saa si nag sama jàngale sama moromu jàngalekat yi. Mm. Mm. ñu song ma. ñu béy mm. bi plus que tous tous les Sénégalais dafa fekkoon ci euh, calendrier euh, mu am programmation. war a ñëw Cameroun. Euh, delluwaat Congo Congo Zaïre. entre parenthèses Mobutu. dafa defoon Cheikh Anta yàlla. waaw waaw. voilà yàlla. alors donc waroon na ñëw euh, euh, euh, Yaoundé def fa conférence université su fa jógee nag ñëw ci ñun Libreville. su fa jógee nag soo ko nag dem Brazzaville jóge fa dëgg dem Kinshasa wa ak ak ba mbasi alors waaye xam naa bi bi mu nee Cameroun am na lu mu yëg ci yaram wi moo waral ñëwul ci ñun mu dellu si Sénégal. xam naa après la man xam na wax wax nañu ni mu demee ak doon. naa daal après daal loolu daal xaw a sonn daal mu noonu waaye nag ma xamal leen de li ko rey yàllaay reyee waaye liggéey bu bare bare bare bare bare bare bare bokk na si Cheikh daaw da da daawul nelaw daawul nopp lu xamul nelaw alors sama bo sama sama jàngale moroom jàngalkat yi songu ma da mhm. nga ma nag faaw da nga ne nga defal ñu waxtaan si Cheikh Anta may leen jaru ko mhm. parce que fii bi bu ngaañoo mhm. ñu wax ci rajo ak télévision dégg naa ay gabonais ñu ne waaw mais pourquoi parler pas de qu'est-ce qu'il a fait pour le Gabon wallaay waaw donc ñoom pour ñoom bu yàlla xam doy la mani mm. nag non c'est pas la peine man nangu nag quand même comme ni def tey mm-hmm. journaliste yu bu ñëw ci man mm-hmm. waxtaan ak moom ci Cheikh Anta Cheikh mm-hmm. ci xam ah ñu ko dégg daan ci am mbég mbég lool te itam ñu naan sama morom jàngalekat yi ñu ñi mu la feeñ dañaa roj sa ko ndànk comme fii mhm. di ñëw di fa di ma seet di ma seet si di waxtaan ak man si mhm. waxtu bi moo ñu dab waaye li ñu mënoon a euh, jukkiwaat ci moom bari na euh, ni ñu koy waxee yoon yemul ci benn waaw nag waaw dina ci mën a teg leen mhm. léeg-léeg da ngay euh, dégg wala nga gis ci journaux yi ay mbir yu jëmati ci Cheikh bu yàggul deer am na fi daanaka daanaka ñaar ñu ñaar ñu seq mbir yi bokk bokk affaire xuma naa xamu nu ma ko mën a tuddee mm-hmm. waaye benn suñu benn mbokk mm-hmm. journaliste la Diop mm-hmm. la sant dégg nga de ak euh, suñu beneen rakk mooy su Souleymane Bachir Diagne ñoom ñaar defe naa dañoo xaw a fengoo dëgg la voilà dégg ci xalaat bon euh, li ko waral nag ñàkkul man parce que man dama damaa rafet njort ñoom ñaan ñëpp xëy na dañoo xër waaye nag attention am na lu faaw nag ñu wax ko. Mhm. Souleymane Bachir Diagne. daanaka ci rallié yi la bokk. la bokk ñu si. waaw dafa wàll si. ndaxte 2006. Mhm. parce que lii c' est très important xaw ma nag looy dindi looy wàññi ci li nga jëkk a enregistré bay c' est très mhm. important. 2006. Jacques Chirac dafa daloo. musée bi nga xam ne moom la créé Paris. ñu naan ko le musée du du Quai Branly. musée des arts premiers. alors mu am ay xumbute yu bëree bëri ak i conférence bis ma dégg ci. fii rajo France Internationale suñu benn mbokkum sénégalais di jàngalekat nekkoon fii sax étudiant la woon fii jàngale na fii fi tam en tant qu'historien waaye nag dafa manqué woon dem États-Unis New York doon fa jàngale ba nekkoon fi sax kilifa ci université bi doon bi doon bi mu doon jàngale ba tey ma nga fa day New York maa dégg loo xam ne kenn nettaliwu ma mu wax ci rajo RFI jëm ci Cheikh mu ni Cheikh moom ah, day day sawar di di di jàng li muy bind. ndaxte romancier la. ndax ay roman rek la bind. ah ba tax na gannaaw roman nag dafa neex a jàng. moo tax dégg de man damay sawar dégg de di jàng. Mm. Euh, euh, euh, ay roman suufeel soofantal. Mm-hmm. Cheikh Anta ci wàllu wépp. bon yàlla dara teewul. daanaka fukki ak ñaar ginnaaw loolu. musée bi tey nga xam. musée de civilisation. ñu di ko waajal. ci naka lay ubbee. mu am benn grand colloque bu Amady Bokum euh, sàkk fële méridien président mu la méridien je ne sais comment là alors intellectuel yu bare ñëw koo ko waxoon loolu sa booy la ci woon quoi waaw fu noonu waaw xëy na xamee wuñu woon ci ci ci ci jëm ak jëmm mm-hmm. waaye xam na sama wutur mais itam dégg naa wuturam ba ma ko séenee ci couloir yi dama ñëw ba ci woon ko man ko eh diw man ko mais yow man na jóob grand romancier dangaa sawar dafa ja ja jàng ay ay ay roman mu ne mais loolu qu'est-ce que c'est que ça. ma ne ko yëkkit ba li ma dégg nga wax ko nag. ci RFI. Mm-hmm. moom laa lay fàttali. Mm-hmm. mu ni ma musuma wax loolu. Mm-hmm. wallaahi. les transhumants. ah mooy ña bañoon démb te nangu ah, tey. nangu nangu tey. benn ngoog du ma tuddee turam. waaye soriwul fi tënkil ji la dëkk. soriwul uh-huh. waaw. te dafa laaj ñu ràññi ko. gëmul seexante de. waaw am na ñeneen ñoo xam te bon mu tudd seen tur. sëpp jaru ko. waaye. fii ñun ñëpp dañoo xamee. rawatina bu dee ñun ñi nga xam léegi léegi léegi ay paa lañu parce que man sama 80 ans. waaw dootuma gune kon bokk ñi ñu feetu ndaw. eh ñoom xam nañu ñooy ñam. Ah. jërëjëf am na solo loolu nga ci teg am na solo bu baax professeur Ablaye Sokhna Diop di paléoanthropologue ñu ngi lay euh, sant di la gërëm waxtaan wi amoon na solo lool ci Cheikh Anta euh, ñu njukkalee ko ci bësam bi nga xam ne moom la ñu doon fàttaliku juróom-ñaari fan euh, ci weer wi ñu nekk muy barki démb ñu ngi lay sant di la gërëm di la dig daje beneen yoon incha allah kon mbokk yi li nekkoon seen émission démb ak tey ñu dig leen daje dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen gërëm jaaw jàllo mi ne woon ci machine bi Fatou Thiam Ngom moo fare woon ci kàddu gi ñu yendoo Norge.